alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñu boroom ñi nga xamee ne moo giiñ moo giiñ ci suuratu alqamar giiñ ne qad aflaxa man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha nee na képp koo xamee ne sellal nga sa bakkan na nga xamee ne na nga xam ne texe nga waaye képp koo xamee ne sàgganee sa bakkan bàyyi ko ci li na nga xam ne perte nga suñ boroom moomu ñu ngi koy sant eh, cant bu méngoo ak màggaayam di seede ne amul benn buur boo xamee ne jaamu ko dana jur njariñ ñàkk ko jaamu jur lor ku dul moom waaye seede itam sayyidina muhammad sallallahu alayhi sallam jaamam la ndawam la yal na yàlla yokk ci moom ngërëm ak xéewal képp koo xamee ne yoon wi mu xàll yaa jaar ginnaaw loolu dañuy dénk suñ bopp eh, di leen dénk ragal yàlla ndax yàlla mu tedd mi moo wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha inna allaha xabirum bi ma taamaluun yéen ñi nga xamee na yéen a gëm yàlla na ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla tey tey xool seen bopp xool seen bakkan xool la nga xamee ne moom la dawal moom la jiital ngir yawmal qiyaam ndax ku ne xam na ne àdduna du kër kër gëni sax mooy yawmal qiyaam kon suñ boroom ne ne ku ci nekk war nay xool ba xam xana lan la def ngir kër googu ndax suñ boroom day lépp lu ngeen def xam na ko suñu waxtaan dañ ko bëgg jëmale ci sellal bakkan ngir ah, ni ni sellal bakkan amee solo ci lislaam ndax suñ boroom dafa nattoo doomu aadama ci ay noon daf ko nattoo ay noon yoo xamee ne la leen ñor mooy dox digganteem ak njub waaye dox digganteem ak àgg ci yàlla noonu yooyu nag noonu ba ca yées ba ca ëppi lor mooy bakkanu doomu aadama ndax suñ boroom moo wax ci alquran ne wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bi suu illa ma rahima rabbi nee na seetalu ma sama bopp seetalu ma sama bakkan ndax day bakkan day digalaat ab ab digale day digale day sax di digale ci lu bon lu dul koo xamee ne suñ borom daf ko yërëm ndax bakkan ni ko yàlla bindee saa su nekk day jéng jëm ci ay bànneex ak lu neex waaye ni ko yàlla bindee yitam bokk na ca dafa tàyyeel ci lu baax ak topp yàlla da ciy tàyyeel loolu moo tax suñ boroom ne wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa nee na képp koo xamee ne ah, ragal nga taxaw ba ngay taxaw ak sa boroom yowmal qiyaama nee na képp ku ko ragal waaye nga tere sa bakkan ay bànneex ak lu neex na nga xamee ne mooy sa kër kon bokk na ci lay tàbbal nit àjjana mooy nit ki juyoog bakkanam juyoog ay bëgg-bëggam ak i bànneexi bakkanam waaye itam bakkan mooy waru kaayu seytaane maanaam seytaane ci bakkan lay jaar ngir réeral nit ki ci ay bànneexam i bakkanam ci lay jaar ba lu mënal nit ki mu koy sob di mënal moo tax suñ borom di wax ci ay alquran ne wa qaala shaytaan lamma qudiya al-amru inna allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum fa axlaftukum wa ma kaana li alaykum min sultaan illa an daatukum fastajabtum lii fala talumu wa lumu anfusakum nee na yowmal bu suñ borom ba pare ba ku nekk xam kër ga nga jëm nee na seytaane day wax ne yàlla day diggoon na leen diggoon na leen ah, digge boo xamee ne dëgg la man seytaane ma dig leen nax leen ndax la ba leen diggoon lépp am gisu leen ko waaye nag oma ci yéen benn kilifteef lu dul dama leen a woo ngeen wuyu kon bu leen ma yedd yedd leen seen bopp kon loolu day wane ne seytaane bu mënalee doomu aadama ci ay bànneexam ak i bëgg-bëggam ak bakkanam ci la jaar ba mënal ko waaye nit ki bu bu notee bakkanam bu moomee bopp moomum bakkanam seytaane mën na koo bañ a mënal dara loolu moo tax waruñoo jeng jëm ci suñ bakkan walla ñuy topp suñ bakkan walla ñuy gërëm suñ bakkan ndax gërëm bakkan day tax doo gis ay ayibam doo gis ay bon bonam nit ki daa war di tuumaal boppam tuumaal bakkanam ci lépp loolu moo tax cheikhul xadim ne wa minhu nafsaka xdaran wa hiya adar aadaai insanin kama jaa fi lxabar laa tarkani dahra ilayha ya fata aw tarda anha bal anaha afbita inna makarima alfata bi xasabi makarihi nafsi wa qadri nasabi Cheikhul Xadim ku ne xam na ne la ko taxaw yoon jug mooy dox àgg ca suñ boroom te ñi ko topp itam dafa àndoon ak ñoom ci yoon woowu moo tax dafa dafa doon leeral lépp loo xamee ne mën naa dog nit ki mën na koo dogale ci yoon wi mu jël ngir àgg ca boroomam nee na bokk na ci lay dogale nit ki ci dox jëm ca suñ boroom mooy mbindeef yi mooy mbindeef yi moo na mooy gestu mbindeef yi maanaam gestu mbindeef yi day tax day dox day dox diggante nit ki ak àgg ca boroomam ndax nit ki ngir mu àgg ca boroomam wurta gis lu dul yàlla yàlla rek la war di gis asbaab yi dana jëflante ak moom ndax suñ borom moo ñu wax ñu sabablu waaye nag day gëm ne sabab yi yàllaa ko sàkk waaye dogal yi asbaab yi waralu ko dogal yi yépp suñ boroom mooy dogal waaye sabablu taxut a am taxut a ñàkk waaye yàlla mooy joxe mooy xañe fekk nit ki àggut foofu amul pas-pas boobu amul gis-gis boobu nga xam ne àggagut ca suñ borom waaye sëriñ Touba nee na bokk na ci lii dogale nit ki ci yoonu yàlla mooy bakkanam nee na moo tax na ngeen koy moytu ndax mooy noon bi gën a mën a lore ci noon yi ni nga xamee ne noonu la ko xabaar bi waxe kon nee na benn jamono bul jeng jëm ci sa bakkan wala nga koy gërëm waaye na nga sax ji di ko sonal di ko teg lu metti du juyóog moom ndax day tedd ngay doomu aadama mi ngi toll ci ne nimu mu tor xale ak ni mu tege bakkanam lu ko naqare nee na ku la gën a juyoog sa bakkan gën la ko teg ay métit gën loo juyoog moom moo la gën moo la ëpp teraanga inna ataa illaahi rahimahullahu moom it nee na inna asla kulli maasiyatin wa shahwatin wa gaflatin arridaa an nafsi wa asli kulli taatin wa ajfatin wa yaqazatin adamu rida minka anha nee na cosaanu bépp bàkkaar ak bànneex ak càggante nee la koy waral mooy gërëm sa bakkan wala gërëm sa bopp waaye cosaanu cosaan cosaanul bépp topp yàlla ak bépp fegu ak yeewu te mooy teewlu yàlla nee na la koy lay cosaanam mooy ñàkk gërëm sa bakkan nee na nga ànd ak koo xamee ne bariwut amut xam-xam waaye dafa gërëmut bakkanam nee na moo gën nga ànd ak boroom xam-xam boo xamee ne dafa gërëm bakkanam gërëm boppam ndax nee na nit ki bu gërëmee boppam rek amut xam-xam ndax ku am xam-xam xam-xam lam lay lam lay la mu war a jural nit ki mooy bu juyoog bakkanam muy tuumaal boppam di tuumaal bakkanam yoon wi nga xamee ne nag mooy moom lan war a yoon moom lan mën a jaar ba not suñu bakkan ba not ko ba moom ko mooy euh, tasjeetu nafsi mooy sellal ko waaye itam mooy sàmm ko waaye mooy di ko di di di di régler suñu bopp ni commerçant bi di régler boppam bu ngoon jotee bu itam régler xool la mu am ci bénéfice ak la mu perte ku ci nekk ci ñun itam bu tëddee war nay régler boppam xool bis bi lim ci def ci lu baax ak lim ci def ci safaan xool ñim tooñ ak lim jaamu yàlla ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo ne na ngeen régler seen bopp lu jiitu yàlla di leen régler ndax ku ñëw ci yàlla day suñu borom dana régler bu fekkee nag nit ki régler na boppam ci àdduna bu àggee foofu régler boobu day gën a yomb. sellal bakkan nag bokk na ci li nga xamee ne moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa jub. bokk na ci mission yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo wax ci alquran ne laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan minhum yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanu min qabl la fi dalalin mubin suñ boroom moo xéewale jullit ana lan la leen xéewale jamono bi mu yónnee ci ñoom ab yonant yonent boobu di leen jàngal xam-xam waaye di yar seen bakkan waaye di leen jàngal alquran ak sunna ndax lu jiitu lool danoo nekkoon ci ak réer boo xamee ne réer bu fees la kon yar nit ki yar bakkanu doomu aadama dafa bokkoon ci li taxoon a jug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam ñi nga ñi ne ñoo ko donn te muy boroom xam-xam yi nga xamee ne duna jëfe seen xam-xam ñooñu itam loolu bokkoon na ci seen mission ci àdduna ak seen taxawaay te ñu ca jiitu mooy Cheikhuna Ahmadul Xadim Sëriñ Tuuba dafa doon dox jëm ci yàlla ngir àgg ca boroomam waaye itam yoon woowu mu nekkoon ci la jaarale woon képp koo xamee ne danga koo topp moo tax dafa tracé aw yoon woo xamee ne képp ku jaar nee na da nga àgg te sa boroom mel ni dañ koo laaj ana lool yoon woowu man ban yoon mu ne man talabal wusula lil jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian laa yamil fi zahirin wa batinin an sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada nee na képp koo xamee ne danga sàkkoo àgg ca suñ boroom nee na na nga moy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi mooy model bi nga xamee ne moom lañu suñ boroom royloo moom lañu topploo mooy ki mat ki nga xamee ne moo gën a mat ci nit ñi ana nooy moye ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sëñ Tuubaa nee na ni nga ci moyen mooy da ngay taxaw koo xamee ne day topp yonent bi ci kaw ak ci biir koo xamee ne day dëppoog moom ci lépp dëkk dëppoog moom ci pas-pas dëkk moom dëppoog moom ci jaamu yàlla dëppoog moom ci ay jëflante nee ne kooku ngay taxool nee ne boo taxoog ku roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga àgg ci yàlla kooku nag daf lay mu wommat daf lay wommat jëmale ci yàlla ana lam ca lam lay wommate jëme ci yàlla mu ne yaquduhu bil almi wal abada kama yurabbihi bi tarkil aada da koy yar da koy wommat ci xam-xam ci jàngal ko waaye wommat ko ci ay jaamu yàlla ci yar ko ci ay jaamu yàlla waaye yar ko ci ay jikko yu rafet yar ko ci ay jikko yu rafet kon ngir nit ki àgg ca boroomam faw ñett day daje xam-xam day day day am xam-xam ndax balaa ngaa jaamu yàlla xam ni koy jaamoo waaye day mën a jaamu yàlla waaye day takkaayoo ay jikko yu rafet ndax jikko yu rafet yi mooy tax ñi mën a xam ne jaamu yàlla ji am na njariñ nit ki bu jaamu yàlla te juralu ko jikko yu rafet mën naa xam ne jaamu yàlla ga amul njariñ dellu wax ne waalam bi anna al ilma wal amala ka adabin tuksibuka al kamala sëriñ Tuubaa nee na na xam ne xam-xam ak jaamu yàlla ak i teggin nee moo lay fàggul ak mat moo lay fàggul ak mat bakkan dafa bokk ci li ñuy dogale ci yoon wi nga xame ne ku bëgg a jëm ci yàlla ma foofu ngay jaar bakkan dafa bokk ci li lay dogale ci yoon wa moo tax ah, Sëriñ Tuuba digal ñu ñu jihaat ak bakkan ñu xeex ak bakkan moytu lépp loo xamee ne ay bànneex la rawatina bànneex boo xamee ne dafa wuuteeg ah, ndigalu suñ borom loolu moom moo ci yées mu ne wajaahidi nafsa imtisaalan li takun kalimatu amrillahi ulya ya fatin wa xaasibanha kulla lahzatin abad yeysar xisaabuka gadan inda samat wa laazimi nafsa bi dikri lmawti wa hawlihi maxtiraazi lfawti وكن مدى الأزمان منها في الحذر كما يلاقي أسدا يبغي درر فإنه يكون مزعورا أبد in saatan yaqfalu yuxaawilhu l asad sëriñ Tuubaa mi ñuy leeral ni nga xamee ne yoon wi nga xamee ne buñ ca jaaree dana not suñ bakkan dana not suñ bakkan ba euh, womat ko euh, womat ko ci li neex suñ borom nee na ana war lan mooy yoon wi mu ne na ngeen jihaat ak seen bakkan na ngeen jihaat seen bakkan ngir mën a jëfe ndigal suñ borom yi waaye ngir mën a yëkkati lislaam te ngeen di régler seen bakkan saa su nekk jamono ju nekk nit ki war nay régler boppam war nay régler boppam lépp lu rot ci boppam rek lépp lu mu xalaat rek bala mu koo jëfe na bàyyi xel ba xam neex na yàlla wala neexul yàlla waaye bu toogee ba ba guddi ba tëdd bala moo nelaw na na xalaat lim def ci bis bi xool la ca neex yàlla ak la ca naqar yàlla la ca neex yàlla mu sante ko yàlla la ca naqar yàlla mu dogg ci bañ koo defaat waaye jéggalu suñ borom nee na booy réglé sa bopp nee na ëllëg réglé gale suñ borom di regle dana yomb lool waaye bokk na ci ni yare sa bakkan nanga koy noté mooy di fàttaliku dee di fàttaliku faatu ndax mooy bunt bi nga xamee ne ñun ñëpp danañ ci dugg waaye fàttaliku ay tiisam ak mettitam loolu bokk na ci lii tax nga mën a not sa bakkan waaye bokk na ci na ngay noté sa bakkan di ko moytu nee na da nga ko neen nee na na ko moytoo ni ngay moytoo gaynde nit ki bu gisee gaynde na mu koy moytoo nee na noonu la war a moytoo bakkanam ndax lu ko lor rek la bakkan bi di sàkku nee na saa sàgganee rek saa sàgganee rek nee na bakkan bi mën na koo lor kon yal nañu yàlla defal ñu nekk ñoo xamee ne seen noon yëpp la ñuy not yal nañu yàlla teg ci siraatul mustaqim rabbana atina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا